mën nañoo dox leneen muqaabil li ñu suñu papa def mu ne ñeenteel bi wala ana allahu man aawaa muhdisa <coughs> yàlla rëbb na ku garanti saay-saay mu leer la ne kii un criminel def ko tu musiba la nga jël ko làqu ko làqu ko sa kër wala nga jël ko ni sa frère la wala sa mag la wala sa nangam nga ne nga ko làq loolu ñeent ñii yàlla da leen rëbb ñoom boo leen doon lim ki ci gën a grave mooy ki sàcc suufu jàmbur donte lu tolloog sebre la kon mbokk yi manaarul ard nit da ko war a moytu jël yi fi jàmbur suufu jàmbur nit da ko war a moytu te tey boo seetloo réew mi wallahi ñu bari ñu bëri ay victime lañ ci wallahi ñu bari ay victime lañ ci ñu leen di lor lor goo xam ni ka koy def ndax mi ngi xalaat ndax yëg na ni bis a ngi ñëw man mii di wax ak yow bugguma victimiser wu mais victime laa ci ñi ma xam te xam situation bi man sama sa sama ñeenti terrain ñu ngi ko jaay plus de 60 millions ci biñ ma dugalee rëbës dugal ma même pas une semaine waa ju dem jaay terrain sama famille ngi nii ba léegi ñu ngi may topp plainte ko plainte ko def na ma ko daaw deux terrain yu ma ko def mu def ma ko ren quatre terrain plainte ko plainte ma ne la la jaru ko non wallaahi du ma ko plainte damay toog ba guddi jóg julli sama xol bon ma bëgg a ñaan rek xalaat ko xalaat njabootam xalaat ma yëngal sama bopp rek bàyyi noonu wallahi samay frère am na ci ñoo xam ne xaw nañ ma cee mere lii lii ñëw ñàkk te daf ko bëgg a jàppee yi fi ñàkk fayda mbokk yi nan la nit di jëlee alalu jàmbur bu ko lew yëfi jàmbur lew ko mu leer la ne diw moom moom lii nga xam ko surtout nga nekk dëkkandoom nga nekk mbokkam nga mun koo def jëf bu ñaaw bi nit ñi est-ce que ñu ngi xalaat rëbbum yàlla ëllëg wallaahi mbokk tey problème bi ñu am Sénégal tey ci litis foncier xool leen littoral bi li Sénégal bokk yépp ay ministre mën di di ko paccoo ay musiciens ay journalistes te lépp ci sababu benn président bu ànd ak ay nitam def loolu ñaata problème la mën a créer ci société bi li senegal bokk yépp muy nature bi ñu bokk war koo noyyee nga xamante ni loolu bokk na ci liy may nit ñi ñuy noyyi oxygène bu normal alalu àdduna tax ay nit di ko paacoo ci dëkku àll bi noonu parce que xam nañu dëkku àll bi ñu bëri xamuñu seen droit dem di nangu seen suuf di ko jaay képp ku ko jaay ak ku nangu ñu jox la ci ak nga jënd ci te xam ne du yoon yàlla rëbb na la te mi ngi lay xaar yowmal qiyaam mbokk yi. nañu moytu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax na ci xadis bu wér nee na man zalama qiida shibrin min al ard tuwiqahu min sabi ardin man zalama qiida shibrin min al ard tuwiqahu min ardi min sabi ardin nee na ku tooñ nit lu tolloog ñëpp ci suufam ci suufam wala suufu état nee na nga jël ci lu tolloog tibb comme li ngay tibb dànku ceeb yonent bi nee na dañ la koy takkal seen yowmal qiyaam diisaayu loolu nu mu mënti toll nag mbokk yi ñu jàngat xadis bi ixtalafa ahlul ilm fi hada tatwiq borom xam-xam yi dañoo wuute ci loolu ñu ne li mu sàcc mu tolloog tibb suuf su duggee bàmmeel la tolloog tibb suuf bi tàmbala ci suuf bi mu taxaw moom ba ci juróom-ñaareel suuf lu toll noonu la yàlla lay jël ñu ko koy teg chaque jour que Dieu fait ba yawmal qiyaam waliyaasu billah tibb boobu rek nit àttanu ko am ñu ne déedéet misaalu suuf si ni mu toll la ko yàllay teg ba nit ñi dekki mu dekki yàlla mbugal ko parce que lan la sàcc mbokk benn tibb benn sebre ci suuf benn sebre ñu bokk koñ bii ñépp bokk ko mbedd mi ñépp bokk ko nga ñëw nga def ci lu la neex nga ñëw nga jël ci mbedd mi jël ci yoon wi mais mbokk doo ragal yàlla loolu nga jël yonent bi nee na dañ la koy mbugal bis boo deewee ba ba bis penc di taxaw soo dekkee yàlla dàq la ci ma dem ñaata tey ñoo nangu kër jàmbur nit gore dénk la këram nga ne ci kër gi di lijjanti di lijjanti ba jël ay kayit ne kër gi yaa ko moom ñaata man nit wax na ma carrément sama mbokk sama kër laa ko aal 17 ans ma nekk bitim réew ndeke moom lijjanti na lijjanti lijjanti lijjanti ba am ay kayitam ma ñëw bëgg jël sama kër attaqué ko tribunal ba léegi moom lañu jox dëgg te muy sama alal ma moom ko te moom mu xam ni man maa ko moom ma ne ko maa ngi lay giñal ci yàlla dey xawma ma lan waaye li mu jël ci yow dina ko fay fii ci àdduna balaa mu ko fay àllaaxira dana ko feebar dana ko amee ay nattu walla njabootam di ko feebar di ko amee ay nattu mbokk yi àq baaxul jullit day moytu àq nekk ministre taxul nga sàcc alalu senegal nekk député taxul nga sàcc alalu senegal nekk journaliste taxul ñu lay jox ay 4 hectares 5 hectares mu leer la ni moomoo ko régime bi passé ñaata ngeen gis ñoo xam ni ñoo ñu la doon dàqante ci si peer yi tey ñu yor ay immeuble loolu xanaa ku def moo ko xamul yow démb yaa ñu ne yay dàqante ci si peer yi dàqante ci si peer yi tey nga bëgg a yor alal bu tool noonu yow boo goree wa nga war a tiit war nga xam ni yowmal qiyaam da nga ak sa borom mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci beneen xadis man axaja min al ardi shay'an bi gayri xaqihi xusifa bihi yowma alqiyaama ila sabi ardin mooy li boroom xam-xam ne neen yonent bi nee na képp ku jël wala nga tooñ nit ci suufam nee na dañuy jël suuf si di la ko bës xas fa la ko ba juróom-ñaareelu suuf ba yowmal qiyaam noonu ngay nekkee nga dekki nit ñi dekk yowmal qiyaam nga yenn suuf noo koy yenoo mbokk mbokk ña ña ñaata borom 20 hectares attan nga 20 hectares yowmal qiyaam nit ñi dekk nga yenu 20 hectares li tàmbalee ci suufu àdduna ba ci suuf ba mujj nga yenu ko nii naan maa sàccoon suufu sénégal wala maa sàccoon suufu bàyyi diw ma sàccoon alalu bàyyi diw maa jaayoon terrain jàmbur maa nangamoon fii man nga ëpp nit ñi doole de mais fële wallahi dëgg moo fa am ak njub tiit leen ngeen ragal ngeen delo alalu jàmbur waaye ngeen Sénégal tey dañoo dem ba yàlla nee na yonent bi nee na safatul ñu bari ndax ci alal seytaane dalay nax ah garaawul ñu bëri nag ci sénégalais yi waxoon naa ko fi ñu bëri ci nitu nguur xawma nu ñu leen naxee ñenn ñi ñoom dañoo jàpp ni jaayal senegal yëpp boo demee umra yàlla baal la say bàkkaar man xawma kan moo leen wax loolu kan moo tax ay grand bandi grand sàcc ngay dajeel ak ñoom ngay dajeel umra te mu leer la ni kii ñëw aj yow xam nga ni moom xam na ni sàcc la ku la ciy xool sax du la ñemee xool bët day day catal ay bët day catal ay bët tey mbokk yi nit bu jëlee alalu jàmbur même boo goree war ngaa xam ni lii lii lii mënul rees première sa àdduna kaso ngay nekk sa àllaaxira mu gën a ñaaw lan moo jar nga daw sa réew ñemeetoo dikk say sët ne fi say jarbaat ne fi say doom ne fi say rakk ne fi say mag ne fi ñemeetoo dugg Sénégal parce que sàcc nga say doom xam ne yow sàcc nga léegi li nga doon bañ am siiw nga waaye am na ñu gën a grave ñooñu mooy ñi gaañu bàyyi ay jirim seeni mag ak seeni rakk nangu alal bi seeni jirim yi am nit gañu bàyyi dom bàyyi terrain wala bàyyi kër bàyyi frère frère bi wara a gérer loolu pour jirimi mu fexe ba alal di nax say fexe ba takk yaayu xale yi aki mo alal bi borom bi nee inna ma ya'kuluna fi butunihim nara mu tak ca wasa yaslawna saira yàlla nee ñi lek alalu jirim ñi jël alalu jirim aki moko ko ñooñu borom bi nee na jahannama safara la ñuy lekk yowmal qiyaam yàlla neen danaa leen lakk sama jirim yi toog am na ci koo xam ni wallaahi papaam li mu bàyyi woon ci ay kër li mu bàyyi woon ñetti tool la bàyyi woon ñetti tool yépp ay doomam perte nañ ko ñetti tool yépp ay doomam perte nañ ko li gën a doy waat kenn ci doom yu mag yi